jaaraamam jaara ku am jaaraamam yaa kaasa doobaray karaam jaaraamam jaama mastema feeru poroxaan jaaraamama mastema feeru nawel sa géej gi neex na waaju naan si farwe feeru poroxaan na xuut de yoo ñoo ngi detam ba ganaate tem nañu banaan ba mandi yaay mbambul aan saf nu xajul ci xandi ñëpp a ngi mos sab liggéey ba saalum fuuta futtiku nañu sagan ne maalum yow sa ajib liggéey bi dem na penku dem soo baarakalla lii faggu yakkal nga waa géej yakkal waa jeeri ba ñëpp gi jël yow fu joore may gan nga bay nga bayaay ndande jigéen ñi boolal yow nga bay ba ndindi jigéen ñaa soxla la ñoo yaa doon soxna ndaanaan nga um nga lambi doomi soxna jigéen ñi soxla la ñu yaa doon soxna ndaanaan nga um nga lambi doomi soxna moo tax jigéen ñi seeni doom na meŋ di réer ak a feeñ yow sa doom ne feeñ moo tax jigéen ñëpp seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram moo tax jigéen ñi seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow doom di yaaram yaa tax jigéen ñi ñëpp seeni doom seex budul ko nag yow noo ngi damm bay soox takkale laa jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la yàlla gi aali takkale laa jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la gi aali di tudd seeni doom di tudd bamba araam na moom rekk attan yen ba yow yaa di bu sa bëli ñàkkoo càngaay ndeka nga jóg sang nu jox nay gaay yaa jigéen ñi seeni doom di meng yaa jigéen ñi ñépp yaa jigéen ñi damasoo ay malfa nuy soli aw fu nu soom nu jël ba yaa jigéen ñi damasoo ay malfa nuy soli aw fu nu soom nu jaar fa jigéen ñi dañ daa gaar di woddoy soppee góor ñiy pii yuy roof roppi yaa suturaal awre yi dindi joote mbàkkee nga mel na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar taam si ndooni won nga ko waa Tuuba gadeeg ci ndoodi laam fa gétti ndar taam si ndooni won nga ko waa Tuuba gadeeg ci ndoodi jaaraamaam jaar pexem jaaraama yaa kawal sa doomaray karaama jaaraamaam jaaraa ko am maqaama yaa kawal keroog bisub qiyaama jaaraamaam jaaraa ko am ay xar baax yaa kawal sa dooma feeñalug baax jaaraamaam jaaraa kuy faj aajo yaa kawal sa dooma faj si naajo jaara maam jaara ko am widaaya yaakaar sa dooma am widaaya jaara maam jaara ko am tey junne yaakaar sa dooma jommal jinne jaara maam jaara saarful jiimi jox naa la jukkay rabi di yeemu jum nga jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe ba leer yi jolli te jikko yi mooy bëgg lim amoo leen jigéen ñu bon ña ko amoon yaroo leen daawu la jëw doo jànni daawu la doo jëw doo jaayoo jaay ci jey waa soobu yoonu jànnate naymi kuroroyul dem jaaramaak jeymi faraagi tax na baragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yilla réewoo rëyoo réeroo ne naa daali doo rummi doora mbaaj bu sabaali amoon nga faayda amoon nga fulla te fit am fit na yàlla fal